Cheikh Diankha maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax madame Moreau. Cheikh Diankha nga nekk euh, koo xam ni dëkk nga Jifeer wala sax li nga fay dem bari na nekk coordonnateur bu collectif des maîtres d'enseignement technique et professionnel mu situation boo doon alerte foofu ca Jifeer à cause de l'érosion côtière est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci situation bi ci yaatal. Euh, merci beaucoup maram si invitation bi di kontaan aussi euh, di la retrouver encore une fois euh, donc di jiital rek di wax ni aussi Jifeer euh, mu ngi nekk ci commune de Palmarin euh, nekk ci région bu ñu naan région de Fatick e ñu jàpp ni aussi té tamit Jifeer donc euh, ñaar ñoo ko sekk muy océan Atlantique bi ak fleuve bi. donc di wax ni aussi Jifeer euh, dëkk la bu nga xam ni dafa lié woon directement ak Sangomar euh, mais depuis 1987 donc si la ñu gis ni ñaari îles yi euh, dafa tàggalikoo parce que tout simplement dafa amoon benn tempête bu nga xam ni moo fa wàccoon et là aussi di wax ni rek que dëkk bi ndox mi mu ngi koy lekk bu baax a baax a baax dem na si sax ba les deux tiers Euh, dëkk bi euh, dox mi lekk na ko muy benn euh, ñaar aussi amoon na fa ay kër yi nga xam ni nekkoon na fa amoon na fa ak usine bu ñu naan delta océan nekkoon na fa amoon na fa aussi hôtel amoon na fa sax benn forêt bu nga xam ni nekkoon na fa aussi mais loolu yëpp géej gi lekk na ko donc muy lu yéeme lu doy waar te bu ñu fàttalikoo aussi tamit jifeer en 2005 donc amoon na espace mais en 2016 donc espace yi dañoo gis ni dafa gën a wàññeeku ba jëm si 2020 nag si la commencé nag lekk ay kër yi yu bëree bëri bëri bëri muy lu yéeme lu doy waar te ñu bàyyi xel ni aussi tamit Jifeer am na 4000 habitants yi nga xam ni ñoom ñoo fay yeewoo te 4000 habitants yi daanaka euh, ñu ngi jóge fu ne si Sénégal ñëw di fa daan seen doole voilà. Euh, tey ji à part jafe-jafe yooyu nga xam ne érosion côtière bi andil na ko waa Jifeex lan mooy yeneen jafe-jafe yi nga xam ne askan wi nekk foofu ñu ngi koy faral di jànkonteel waaw euh, à part érosion côtière bi yeneen jafe-jafe yi bokk na ci maanaam ci wàllum kaaraange donc wàllum kaaraange sécurité bi amu fa euh, beneen bi aussi tamit wàllum ñàkk ndox bi aussi am na fa loolu Euh, donc yooyu muy nekk phénomène yoo xam ni euh, ñun ñu nekk jifeer dañ koy rencontrer à chaque fois. Mhm. voilà euh, ku wax jifeer aussi sa xel dafay dem si wàllum tourisme bi est que ba léegi touristes yi ñu ngi ñëw foofu lan mooy situation bi exactement ci domaine boobu. waaw tourisme bi nag demeewul noonu bu njëkk ba wax dëgg yàlla amoon na xéwal tuuti mu ngi doon dox normalement. mais depuis vraiment ba ñu noté que ni géej gi mu ngi commencé lekk ay kër yu bëri bëri donc tourisme mu demee gu fa noonu parce que ñiy ñëw di ñëw di def tourisme foofu noonu donc dañoo dem benn moment euh, dañuy jaaxle te seen fit du dal donc de ce fait euh, donc si la ñuy commencé arrêté vraiment lii di wàllum tourisme parce que tamit euh, nit ki euh, sa xel fu mu dalee rek fa ngay dem. donc munoo jëf yenn yi te sa xel dalu si moo tax loolu dafa wàññeeku lu bëree bëri bëri te dafa sooxe aussi lu bëree bëri euh, wàllum tourisme aussi tamit bu woyee euh, wàllum jënd ak jaay bi aussi doxoon na fa lool ak wàllum napp gi waaye loolu yëpp aussi dafa commencé di ndërmeelu di nax saay bu baax a baax parce que tout simplement géej gi moo commencé lekk dëkk bi te nit ki nag fu sa xel dalee rek foo nga amee jàmm defe naa foofu ngay nekk Ah. Hmm. beneen euh, affaire aussi ma la est-ce que wàllum immigration irrégulière maanaam ñiy jël gaal yi pour dem Europe wala Espagne est-ce que laal na bu baax a baax ji feer wala bariwul ñi nga xam ne ñi ngi euh, dugg ci mbir moomu. waaw euh, wàllum gaal bi nag mbëkk bi bon jotaguñoo gis nag ay cas yi nga xam ni dañ fiy jógee fii à Jifeer donc di jël gaal bi di dem. waaye nag jifeer euh, aussi point la bu nga xam ni gaal yi dañ fi daan daje euh, pour mun a génn di dem di napp ji voilà waaye nag euh, d'après euh, immigration clandestine bi nag loolu wax dëgg yàlla euh, gisaguñu ay cas yu mel noonu fii à Djiffer. à Djiffer en tant que coordonnateur au collectif des maîtres d'enseignants techniques et professionnels amoon ngeen fi ay jafe-jafe yu bari yu ngeen doon soulever fan ngeen ci toll ak nguur gu bees gi est-ce que am ngeen ci solution. waaw jafe-jafe yi nag wax dëgg yàlla fa mu nekkoon ba léegi mu nga fa. te li ci gën a yéeme tamit mooy que ni ñoom ñoo ñu demandé woon pour ñu rédiger leen ce qu'on appelle un document technique muy benn euh, kayit bi nga xam ne dañuy lister maanaam suñuy problème euh, ñu waxaale si aussi tamit yan solution lañ sa xalaat pour ñoom ñu mun koo jël waaye malheureusement loolu bañ ko defee jëbbal ko suñu autorité muy suñu ministre de la formation professionnelle monsieur Amadou njekk Saare ba léegi yéeyu si yàbbiwu si muy lu yéeme lu doy parce que tamit euh, enseigne euh, secteur enseignement professionnel et technique dafa nekk lu nga xam ni kenn waru koo fooye donc ñi fa nekk di liggéey aussi tamit euh, war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax donc problème yooyu wax dëgg yàlla ba léegi mu ngi fi di tege waaye gisuñu ci benn avancer bi nga xam ni suñu njiit yi yëkkati nañ ko pour mun koo saafara. Hmm. est-ce que am ngeen euh, plan d'action neenu noo xam ne bëgg ngeen ko doxalee pour ñu taxaw si jafe-jafe yooyu le parce que école bi ubbi na sànq yaa ngi koy waaw euh, am nañu plan d'action parce que tamit euh, dañoo nekk si dëkk bu nga xam ni wax dëgg yàlla yoon may nañu bu ñu gisee ni vraiment ñu ngi noot wa ilaa di salfaañe suñu àq ak yelleef. ñu jug taxaw wax si waaye tamit ñu mun see dox euh, plan d'action bi nag bokk na si wax dëgg yàlla euh, ñu bàyyi lépp lu nga xam ne euh, dañuy ñoom dañu ko doon joxoon ngir ñu def ko te ñun waruñu koo def parce que suñu ak ak yeleef la ñu salfaañe muy lu ñu naan boycotté boycotté nag boo ko déggee mooy nga war a def mbir nga lànk téye sa loxo nga ne doo ko def parce que tout simplement dafa am lu nga xam ni moom la ñu woote ak ñun te malheureusement loolu defuñu ko muy lan muy si wàllum correction wu suñu statut suñu statut nag boo ko déggee mooy que ni euh, dañoo considéré si hiérarchie b te ñun dañuy intervenir si moyen secondaire maanaam daaray diggu dóom yi hmm. te boo xoolee ñiy intervenir si daaray diggu doomi ñoo ñu dañoo war a nekk si hiérarchie b malheureusement nag loolu ba léegi Euh, corrigé wuñu ko muy benn ñaar aussi tamit euh, bokk na si si wàllum passerelle de formation professionnelle muy ay yoon yi nga xam ni euh, dañu ko wutal pour ñu mën faa jaar pour ñu gën a mën a yokk suñu grade yokk suñu niveau malheureusement aussi loolu ba léegi saafaruñu ko donc nag am nañ plan d'action boo xam ni ñu ngi koy tege à bord di xaar école tëji nag ñu mun koo lancer. Mm-hmm. kon euh, Cheikh jànq euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi maa ngi lay fay bu baax a baax a baax may fàttali ni Cheikh euh, dëkk nga foofulee ca Jifeer nekk coordonnateur bu collectif des maîtres d'enseignement technique et professionnel jërëjëf ci disponibilité effectivement merci beaucoup xëy na peut-être euh, di leeral benn mbir rek avant may tëj. muy euh, benn assemblée général ba nga xam ni ñu ngi koy jàpp le vingt et parce que le sept lañ ko téewoon. Mm. mais euh, amoon quelques soucis moo taxoon ñu toxal ko ba le vingt et un incha allah vingt et un septembre ici à Thiès au CFPE si biir assemblée générale boobu incha allah. donc dinañu tekk ay plan d'action yi nga xam ni dinañu xam ni école bu tijjee lan ak lan la ñu war a def Euh, bokk na aussi si boycotté wax dëgg yàlla cours yi mais aussi ñu ngi ciy woo vraiment euh, waa réew mi FM ñu teewee vraiment assemblée générale boobu ak euh, presse nationale bi yëpp yëpp di di la jaajëfal bu baax di ziar aussi vraiment sama collectif muy le collectif des maîtres d'enseignement technique professionnel. voilà merci Cheikh Dianka jërëjëf. merci beaucoup madame